assalamu mbokk yi saan allo Dakar TV man Dallou dakar ma ngi len di nuyu fi may tassé yéene kaay yi Thiès Ngaye Tivaouane Mbour yéen ñep nuyu len ay ayca ñu dem Sud Quotidien Sud Quotidien ñu daal def Macky codige le pays en berne formation du prochain gouvernement soko bëggé xam demal ci li nga xamante moy Sud Quotidien suma duggé jógee Sud Quotidien damay da dem ci turbine yéene turbine yéene def Ismaïla Madior Fall dursi les clauses.

à Khalifa Corsé à Rebeuss ha ilah illallah Manam cortège visite yi Khalifa Sali nek nekk Rebeuss fi toll nii visite dafa xat waxuma ko pop yéen a ko su ma ci pop yéen a dama da dem ci li nga xamanteni ni l'observateur l'observateur ñu def terrible affaire de mœurs au sein de l'armée la ilah illallah terrible affaire de mœurs ci biir armée bi ñu da def le colonel Kébé rattrape par son passe de prédateur colonel Kebedal, daal dañ ko japp par son passe de prédateur waxuma ko li nga xamanteni l'observateur ko wax suma ma l'observateur ci da dem ci Dakar Times Dakar Times suñu daal def euh, service d'intelligence stratégique da def li nga xamanteni moy mooy nok ba ca kanam bo bëggee xam xolal Dakar Times suma ma Dakar Times damay da dem ci les échos les échos ñu def top trop de pression sur les épaules de Sadio Mané quand il vient au Sénégal waaw waaw ci doomu Sénégal bi yaa toj adina de cey Sadio fi mu toll nii Sénégal ñu ngi lay sago waxuma ko li nga xam Les Échos ko wax suma joge ci Les Échos damay daal dem ci critique critique yéen kaa ñu da def euh, but sur l'équation PMD da def li nga xamanteni moy pap massa Massata Diack ak Lamine Diack dom ja ak tubaab ba ak juge ba mi ni li nga xamanteni moy critique yéen kay ko wax suma joge ci critique yéen kay demé da dem ci la source source ñu da di def 18000 euh, tonnes de danger ha illa illallah 18 000 tonnes de danger La Rome Sénégal rek danger bobu, ne génn rek waxuma la source ko ma la source dem ci la nga direct info direct info ñu da def lo drame. bisan et le génie de la Kora Manam, jinne Kora ak nga la lo drame direct info ma jógee direct info dem na ci ga damay dem suñu def Papa saou. j'ai espoir

yooya fàq nañ dem Grand Yoff hôpital ba nit ñaa ngay faju kenn mënut a wér Grand Yoff léegi ñëpp muuma kenn waxatul booy ŋaang rek yooyu di plongé Grand Yoff léegi ni la ñuy waxee ba